ne ko lu tax nuy woor nun ak farisiyen yi te say taalibe duñu woor yéesu tontu leen ndax gan yi ñëw ci céet dinañu naqarlu dara li fekk boroom céet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bés yaa ngi ñëw yu ñu jële boroom céet gi ci seen biir booba nag dinañu woor xam ngeen ni kenn du daax mbubb mu màggat ak sekkit wu bees ndaxte sekkit wi day ñodd mbubb mi